man bu ma doon maçon franc maçon dinaa ko wax lu ma ciy ragal samay xarit yu yu xarit yu rëy ay franc maçon lañu bu ma doon franc maçon man amul ku ma ragal ci àdduna bu ma doon franc maçon wax ko waaye man du ma franc maçon liggéey rek laa liggéey rek laa xam ñi koy wax dañuy leeb wala dañ leen di fay pour ñu dem jéem a yàq sama der der ji nag kenn mënu ko yàq xam-xam ak bëgg liggéey diw milliardaire la loolu waxu picc la ah yoo xanaa yaa ngi door de balaa ngaa juddu balaa ngaa juddu def naa fi ay projet yoo xam ne milliard la balaa ngaa juddu kon nag ñi fii ne di may laaj alel bi man sama alel dafa set wecc sama loxo dafa set wecc liggéey kese liggéey kese demal ci internet nga seet li ma def lu mel nan Merci de vous abonner à Pikini Productions. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.